di la jox information à temps réel Dakar Instant fi nekkoon uh, acteur waaye itam nekkoon fi comédien di Demba Ba mi ngi koy remercier daal def ab vidéo di ko sant di ko gërëm ndax gis nañ li nga xamante ne mi ngi yor ab 200000 ci loxom di remercier coach naan bu subaa dinaa dem hôpital ba lépp loo xam ne wax nañ moo ko ci sama feebar bi incha allah dinaa la rendre compte ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci acte bu noble boobee nga xam ne coach def na ko ba tey wàllum people buzz ah, ki nga xam ne mooy oustaz bi nga xam ne dafa toll ak askan wi muy oustaz Modou Fall li nga xam ne mooy ah, réseaux sociaux xamee waaye wax ji wax ji moom mi ngi naan est-ce que wóor na leen ki nga xamante ni mooy Pape Mbaye góor jigéen la ba parendo ba noppi daal di défendre ki nga xamante ni mooy Sanex oustaz Modou Fall génn na ci coowum Pape Mbaye ndax sénégalais dañoo gis Pape Mbaye fa mu nekkee góor jigéen ba tey waaju baax daal daaju koy feelu waaju baax mi nga xamante ne moo nekk ci série Adja moom mi nga xamante ne dafay dindi su askan wi daal di ñooy ñëw moom tamit daal di yàq képp koo xamante ne góor jigéen nga lu mel ni xeme yàq leen lu mel ni xeme mu doon loo xamante ne ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi ki nga xamante ni euh, moo fi nekk euh, doom ci Sidi Lamine Niass di Cheikh Niass euh, gannaaw ba mu tuddee tout tànkam ki nga xamante ne mooy way juróom boobee nga xam ne macha allah amul lu mu deful ci mim réew di Sidi Lamine Niass waaye itam mu feggo ca ki nga xamante ne mooy soxnaam Nobel Babel tey jii la ñu tuddee seen doom ki nga xamante ne moo di seen goro seen way jur bu góor di Sidi Lamine ñaanal xale bi dund ba li nga xam ne mooy njëriñu ndeyam ak baayam ba tey ci wàllum société dañ koy door rek jamono gii mu doon loo xamante ne dañ ko nemmeeku fii nga xamante ne mooy mim réew bitim réew ki nga xamante ne mooy soxna Aïda Diallo doon nañ fi soxna ci Cheikh Béthio Thioune gannaaw ba mu génnee manifestation boobee nga xamante ne amoon na ko ci 14 février cant boobee nga xam ne defoon na ko mun nañ fi dañ fi gis coow lu bari ba gis ci ab mbàkke mbàkke yu bari yu génn di wax ci mbir moomee ba tax na ñi nekk fële ci bitim réew dañoo génn def seen déclaration ne ñoom pare nañ képp ko ñemee képp koo xam ne danga pare pour faagaagal ko ñoom itam dañ leen faagaagal ndax ñoom gisuñu kenn gëmuñu kenn ku dul soxna Aida waaye itam ñu fi nga xamante ne mooy ak Sénégal rawatina Ndakaaru Njaay léegi léegi ñu daal dugg ci li nga xamante mooy wàllum tàggat yaram wàllum tàggat yaram lu a fës dañ koy doore ki nga xamante ni eh, moo di Cristiano Ronaldo itam daal di génn def benn déclaration bu am solo ne li nga xamante ni mooy wàllum l'islam daal di koy dippee ni l'islam m'a sauvé la vie mu doon ay kàddu yoo xamante ne Cristiano moo koy wax ndax gis nañ ci anam ba nga xamante ne soloo na ko waaye yaram li gën a fës ci eh, suñu réew jamono gi passé gis nañ ki nga xamante xamanteni moy Papa saw mi ngi waajal combat wam donc di def ay déclaration yu am am solo fas jakar la ki nga xamanteni moy site le 5 avril fële nga xamanteni moy arène nationale dagar instant lépp lo xamanteni xawna ci combat bobu nañ len ko baxé yéen suñu mbokk inter internaute waaye itam batay walu tagat yaram nena ko mom mi fi nekkoon l'ancien roi des arènes balle gay 2 balle gay 2 nak jamono ki dafa samp ndam dafa bëgg doon li nga xamanteni moy ne mooy way Géejawaay meeru way nak la balle gay bëgg doon ba tax na yéen mbokk internet di seen

Dakar Instant la nuit béguée qui Sénégal. Dakar Instant, vivons l'instant.